maa ngi nuyu ñëpp di wax yóbbante Khalifa Ababacar Sall ndaxte juridiquement li mu yóbbante Met Ndiaye wax na ko mais li nga xam ni moom la bëgg ñu wax waa Ndakaar yi nga xam ne ñoo ko faloon wax ko waa Sénégal yi nga xam ni moo nekk ci seen xool ci élection présidentielle yi ñu jëm mooy mbir mi reetaan la ko def ñun ci ñun sax kenn stressé woon ndax mbir mi comédie la ñu def ndaxte dañoo jàppoon ne Macky Sall maire la woon d'abord ñu jàppoon nii dañu naan dafa judd appel les indépendances ñu jàppoon ni mu Mobutu ak temps Yaya Jammeh jeex na wante lii tey wane na ni ay cuune ñoo ko wër wane nañ dañoo jumbiñ fi jëlee Ablaye Wade ndax tey ñëpp xam nañu nii réew mi tey bu fekkee def nga pourvoi tant que amoo condamnation définitive tey lii mu def nii décret bi mënul génn kon tey lan la lan la lan la feeñal keroog def nañu seen dëpp fecc ba doyal wax ni ñoom ñoom moom Sénégal dóor seen dënn xëy suba wàcc ci terrain bi ku ñu dem ñu ko suñu carte kat pare xalifa la ñuy xaar pare ne ko ñoom ñu ne kat kii buñ ko gaawul sàkkal pexe kat dina am jafe-jafe moom dina nekk dina nekk candidat te ñun suñu parrainage du mat loolu moo indi yàkkamte bi yëpp donc tey li ngeen di comprendre tey mooy ñoom décret bi ñoom sax gëmuñu ko ñoom gëmuñu ko cest dañu bëggoon déstabiliser xalifiste yi ci Sénégal ay ji diaspora bi mais Khalifa Sall neen dañuy perte seen temps ñun li ñu waxtaane bopp gi mooy décret bi ñun daa mel ni ngelaw lu jàll ci ñun ndax waxi dof la yëfi dof la li la koy wan mooy bu ñu xëyee ba déposé suñu recours cour suprême décret ba amatul débat dafa la yem parce que dañoo ni la euh, boo déposé recours bi condamnation bi la condamnation est suspensive donc dès lundi wala mardi bu ñu ko déposé jàpp leen ni condamnation bi ak décret bi yëpp dem nañu ndox ma léegi nag li koy faj politiquement du wax ji mooy tey ji ñoom dañu doon divertir pour ñun ñu fàtte parrainage bi wax ci waxi mairie bi mais dès lundi incha allah bu ñu déposé recours ba pare ñu ngi ci àll bi dajale signature yi ndax li koy faj mu ngi ñëw. voilà Bamba Fall président su la ooyee pour liggéey sa réew di nga ko uyu ji est tey jii nii eh, suñ nga diriger a wax da ngaa moo koy diriger. dama ne délégation spéciale du fi mën a am newu fi te tey lii mu bind sax waxul délégation révocation la wax ñun ci suñu bopp waa kër xalifa soxlawuñu tànn ci suñu biir maire benn maire la ñu am te xalifa Sall la soxlawuñu lennam xalifa Sall moo fi des doon maire. kon kon ci leeral décret bi bi dong la concerné. décret bi daal non non non cest journaliste yéen yi dañoo juum décret bi concerné wul conseil municipal bi c'est la personne du maire qui est révoquée ce n'est ni le bureau municipal ni conseil municipal.